estade bi VCR ci biir VCR bu fa année yoon sama fekk ko foofu. moom Pokola. bu duggoon ci vestiaire laa vestiaire stade bi boo si duggee sax dinaa la ko fekk. Ah, ak ni nga bëgg mais ni ni nii dafa mel ni dafa da nga xam pokola. billaahi bu arbitre sifflé tànk bi mu teg ma teg ko foofu. si lan fëy boo teg loolu. Ah. mais ni ngay waxee nii ni ngay waxee nii dama dëgg gis nga koy waxee. wax nga ko si Ardon. waaye man damaa war a génn si lépp kii boo nekk nii kuréel bi nii. Hmm. waaw war a génn si kurel bi. waaw si dama fa war a génn ko ah. waaw te jàpp nga ni ki euh, Pokola moo la fay génn. wóor na génn. woon na alxuraan nga fee génn. laay dama ciy génn. ah mais liis ni ngay waxee ñeme nga laa de. waaw man damaa war a lekk mais ñeme nga Pokola de. waaw man tekki si laamu man. waaw Pokola xale di nga yox Poko mbaam Poko lu nekk du hmm? fit koy. moo ma koy xañ. doole bu ñuy wax tamit du ma ko xañ. du jàmbaar moo ma koy xañ. yéen ñaa ko fit. bu dee loolu moo koy mais dama koy am ba mu doy. moo ëpp fit moo ëpp lépp na jël. moom waaw loolu la ñu wax waaw ne moo ëpp fit moo ëpp lépp. mais yéen ñaa yow mais yow laay la yow yaa ngi ko ëpp fit. maa kat yaa ko ko laa. man awma fit man tapet laa da nga ko ma eh, bëggoon def dama koy dara. ku dàq xëy laa rek damay tàqale nii awma dara. mënuma mais dafa mel ne ñemewoo Pokola parce que ni ngay waxee nii moom adversaire moom mus bu weesoo yàlla eh. ak cër. Hmm. nit gënuma yaq wa mais mais dafa mëna gëf que ngi wax ni mosul. lis manam moom la benn affaire manam yalla rek la rek bu do koy ragal nga ragal kenn mu yalla manam hmm. yow bindef yow yow yow bindef bi. Hmm. barke Seydina Muhammad cër bu desee suñu diggante bu gënné suñu diggante man ak yow. di nga xamni ki ni neexul nekkul nit bu baax. mais sa diggante mais sa diggante Pokola cër cër nga ci. da tamit mënul wess lu cër tamit ngeen di ñaari ay ndaw ñaari dëkk. mbër la ma war bëre man yeen ñaar. yaa mais xam mom du am dara waaw loolu laa nga xam ko du am dara. mais far nga tek du am parce que lépp yaakar ñu yaakaar dégg nga lépp lu ñu yaakaar ñoom waa Pikine. Hmm. lépp lu ñu yaakaar combat bi. Hmm. wóor na alxuraan du ci am dara. la nga japp ni wa Pikine dañ ko japp ci combat bi fu mu ton mom yaakar mom jaral la si am dara. la la man sama carrière solo ma favori man jambar la hmm. ay ya man ki yoy sama yoy néew ma si yooyu. mais ñi lay diggal na la ya man liis ya man liis bu combat bi jexé nañ taxaw ne la ya man liis. mais diggal de Pikine jambar dafa mel dafa commencer légui bu njëkk dañ da wax ay Pikine Fass Pikine Géejawaay léegi dañoo bëgg Pikine jàmm gën commencé nekk nekk li mooy loolu derby wala la. yow loolu la wax combat bi derby la. te waa jàmm gën duñ soxla benn derby muy tagee si man. Hmm. déggoo mu la. mais def si bu ngeen ba Pokola indi ko man waa jàmm gën ngeen ma indi ma. bu bëggee ñoom waa gàll bi ñëpp laa la wax yaa ngi ñu si takk ngeen mu ñëpp waa gàll bi ku si nekk da ngeen daal sër jour combat bi. jour sër. indaale sër jour combat ku si nekk dañ daal ma daanee Pokola ñoom ñëpp ñuy ñëw ma leen jeexal par benn benn ah melis Liss waa gàll bi nag laa la wax ñoom ñëpp dafay tax ngeem. mais Liss yaa ngi déclaré guerre Pokola de. waaw dama lay wax rek nga xam quoi. mais ni ngay waxee nii dafa mel ni ngay wax ak koo xam ne benn mbër moo xam ne soo ko dugg ci làmb Pokola xam nga ku xam Pokola adversaire Pokola moom gars So sax boo xam ñu la Pokola mi daa ës. sama bopp laa gën a xam ko Pokola moom waa gars yi naan ak. ma sama bopp man laa gën xam ko Pokola. waaw moo doon lu nekk man rek wax quoi. mais arbitre sifflé génn si diggante samp jaaga yaa laa yi bu arbitre sifflé génn suñu diggante tànk bu mu tegg naa ko fa teg. samp jaaga mu am jom joxal jaay tànk bu mu teg ma teg ko tànk. samp jaagam joxoon mbay dox si ko pokola. baax na. mais bu la wéccee yàlla may da ah. nga foo jógee nii entraînement nga jógee la mel na. waaw entraînement laa jógee. Ah. mais bu mel ni entraînement da ko jógee au sérieux pokola moo toll noonu wala comme ni ko carrière. moo toll carrière non même sax man làmb laay def man làmb mooy sama métier. Ah. waaw damay entraîné même bu dul sax parce man bu ma bëri pokola pare nekkul lu may bëri pokola rek. Hmm. yàlla dali si bongo yi kon fii nga koy liggéeyee quoi. waaw ah, kon maanaam laal waaye déggoo ñu ne maanaam ndékki kenn ko boo demee si Pokola ne ma ko ndékki kenn ko lijjanti da nga koy fanaanoo. waaw. ñi lay dee naan la nii la booy bi lii la booy bi lii la ñu ngi lay nax. barki alxuraan. waaye combat bi du yomb de. sa diggante ak Pokola Bal. wóor na Seydina Mouhamed. billaay wallaay taalaay. bëgg nga bis bi de. dina si daj lu musul daj si combat. moom Pokola he meli sa nga déclarer guerre Pokola ta Pokola mom neena mom ku ko déclarer guerre lay bañ ci aduna mom neena bako bu la la defé pour wala dama djégg Pokola ñom isir la wax ni wa galé bi buñ dajalé ay sœur ñom ñep wa ma dal la ñom ñep par ben wèr par ben wèr billahi mais mais mais mais ñu melni revanche ngay bëre ci ndax Pokola dafa daan dafa dugg commune jam gën ci kamba dafa dugg fi nga daan ki nga xamanteni moy bu laal daan ko ala manière jam gën gep nek ci ginaawum ba site na mu daan ko dan ko jël bu rek wa légui mom tam en revanche lay bëre. Ah. man fa la mu jël pikit ah. ka la fa dóor mu daanu. naar naar soraas waaw moom tamit revanche lay bëre. revanche lay bëre. waaw ah. muy bëre revanche ngay bëre revanche. combat déclenchement ku daan wara dem. ku daan dem ku daanu xaar. ku daanu xaar kon kuy xaar mom man mom damay dem. kon moy xaar. waaw man mom damay dem day xaar lu bëri. euh na yalla ah mais Pikine fi ton li mom bañ jógee ci digg am nañ ci. am nga lañ dëkk. waaw nit dawul suñu yaram. Hmm. waaye maanaam kàccoor laa la wax ni lo mën ta mel. Hmm. lo fi indi ben dang fi fek fuk hmm. waaw ñun taalibe rek ngeen mëna jaay jënd ñu quoi. Hmm. maanaam ñun manam taalibe rek moñ mëna jënd. waaw bu wéso lolu mom waaw bu naree ñaaw nit duñ ci jitu bu naree ñaaw kenn duñ ci jitu mais su diggante ak pokalaaj xam nga xaar mu ñaaw. at bi tëjee barrière bu naree ñaaw nit duma ci jitu jiitu. mais ko solo ma lu rafet mo diggante man ak mom su diggante ak. pokala pokalaaj ci lolu solo ma ci lu rafet. ah mais Liss mais Liss ni ngay waxee ni li nga dencal Pokola waaw yal na yàlla dolli sutura may ñu gudd fan ak wér dala fekkee ba jour bi. li nga dencal Pokola. waaw yal na may dala fekkee ba jour bi rek. Mhm. kon ba mbaare nga dalu rek. waaw sëñ Fallou di profité tamit di nuyu ñëpp. di nuyu Assou Mbaye borom Pikine. waaw di nuyu Kumba Dieng. waaw borom Angleterre Kumba. maa lay bëggee bu baax. waaw di nuyu Kebe. Kebe borom France.